Thank <laughs> you.

crédit qui ko au woon du ministre des finances et du budget Mamadou Moustapha Ba mi ngi confirmer li nga xamante crédibilité banque sénégalaise yi jëm ci wàllu lu ñu maîtriser les plots, xamante ni na ci dette bi ginnaaw réunion conseil boobu bu même conseil national de crédit qui dit ministre euh, bi dit Mamadou Moustapha Ba expliquer na benn situation boo xamante ni réew mi mi ngi koy jànkaarloo mu estimé ko lépp loo xamante ni na ci maîtrise mu comparé ko ak yeneen dëkk yoo xamante ni ñu ngi fi mu ngi indi ñëw di gis souvent ci yenn médias yi ñuy joxe ay chiffres yoo xamante ni dafay effrayer lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu dette publique bi nga xamante ni soxal na réewum Sénégal ba tey suñu sukkandikoo ci ministre Mamadou Moustapha Ba mi ngi xamal lépp loo xamante ni sukkandiku na jëm ci wàllu absence muy jëm ci wàllu maîtrise ak réalité yi nga xamante ni am na kii di Moustapha Ba mi ngi xamal ni que également évoqué na benn subvention jëm ci wàllu cent milliards de francs pour ñu jëmale ko ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu intrant si prochaine campagne agricole bi nga xamante ni war nañ ko deugmal en tout cas muy ay cadre yo xamanteni ki di euh, ministre de l'économie du finance et du budget Mamadou Moustapha Ba yëkëti nako ko di ñu rassurer que lepp lo xamanteni jëm na ci walu crédibilité jëm ci walu banque sénégalais yi donc mi ngi xamal ni que nekk la maîtriser li nga xamanteni moy dette bi menn say nak da fay jaxlé su gisee ci yenn médias yi ñuy effréné yenn chiffres yo xamanteni da fay tiital askan bi alors que wul nonu maîtriser wuñu ko xamuñu luñ ciy wax ba tax tay indi na ben subvention bo xamanteni ni dina dellu c'est 100 milliards témé des milliards pour nous dugal ko ci entra yo xamanteni mo jëm ci prochain campagne ak subvention agricole.